di leen gërëm di leen ñaanal yàlla defal leen ndimbal kenn ku ci nekk ci yéen di beral nuyoo nag imaam yi fi nekk seen taxawaay ci dëkk bi di beral nuyoo imaam yi fi nekk ci ñi nga xamante ne moom lañu àndal muy euh, saldige yi jaraaf yi ndomba tànk yi mu ñëwaat ci ne coutume bi suñuy maam ko moom man mën naa falu jaraaf mais bëgg naa ëllëg bu ko sama doom wala sama jarbaat di jël la nga xamante ne mooy ndëgërlaay la ñu bañ ko salfaañe ndax ñu man ko joxante génération par génération ëllëg ñu ne ah jaraaf Malick Samba nii la doxale woon nañu roy ca taxawaayam ndax joxe na ba bakkanam pour Cap-Vert ñëpp mën ci ànd xale yi mën ci jariñu c'est extrêmement important ndax lu baax boo ko amee ñëpp di ko roy nañ ko sàmm ndax kenn mënu ko séddoo ndax cërëb saltige bi mu yor dama ko dénk su ma neexoon jëlaat ko ndax il n'a pas l'exclusivité donc nañu ko rafetal ñun nag nangu ñu ndaw ñi ànd ak yéen ñun ñu yëg suñu cër yéen ñu jox leen seen bos ba mu mat sëkk. loolu mooy yombal dëkkuwaay bi mooy yombal mbir mi ba xalaat yi ñu am pour suxali Yoff buñ ci tënkoo ñun ñëpp ñu mën a jëm ca kanam di beral nuyoo it adjoint maire yi ndax ay xale lañu ndax boo gisee ku mel ni doyen Sidi Bara yoroon planification fii ci ndakaaru nangu bàyyi léppam ànd ak ay xale muñal nañu lu bari baal nañu lu bari jéggal nañu lu bari sama yaay jël kenn waxaale ko jéggal nañu lu bari muñal nañu lu bari ndax ñoom dañuy toog di gis man lu ma gisul ñu ne ma meer nii la man sama deret bu tàng laay gis ak bëgg bilan kut ka kut bilan nag la ma leen sànq rek yàllaa ko yor waaye ñu ngi jël seede yàlla ne la ñu war ci jubal ak liggéey ñu ngi koy def ndax li maire bi daan jot ci taxe muy jógee ci askan bi ñetti million par weer la woon jëm ci fukki million bëgg nañu jaraaf mu yegg ñaar fukki million ndax ñu gën a mën a taxaw suñu dëkk maire bi mu ngi daan am ñaar téeméer ba ñetti téeméeri million ci investissement at bu jot ren ji ñu ngi ci juróom ñeenti téeméeri million bëgg nañu déwén ñu passé milliard incha allahu rabbi ñu ngi liggéey ci éducation maanaam xam-xam ndax dafa am fu réew mi jëm am nuñ ci war a demee ànd ci nag ak i teggin ànd ci ak i yar te loolu li koy may sax ndaw mooy bu xëyee jàng ji école ba gënal ko këram bërëb yi jàngale di ñuy fay man maire yof dama leen di concurrencé dinañ ma mere mais dama bëgg chance bi su ma wéyjur am ku mel ni Ousmane Tanor Dieng am ko ku mel ni xalifa sàll am ko ku mel ni Ousmane sonk am ko ku mel ni président Macky Sall am ko nañ ko may doomu yof bu ne maanaam nga juddoo fu baax moo waral matériel bi ñuy maye nga jànge fu baax moo waral taala jàng bi ñu yeesal ak yeneen école yi ëllëg fu ñu yëkkati ci réew mi ñu ne kuy jiiti yow doomu yof yi nga mën a yëkkati sa loxo doomu yof bi nag du diggante laay nag dongoor waaye jili mbay ca la bokk Nord Foire sa la bokk Ouest Foire sa la bokk naka jaraaf waxe lu yoof amul lu yoof am te soxlaaw ko nañ fexe ba waa travaux am ko nañ fexe ba waa Ouest Foire am ko ba ñeneen i cité yi ko ci saltige yéen a ko ñaanoon seen maam a ko ñaanoon ne yaatal leen saxeti gan yaa ngi ñëw donc loolu ñaan ko nangu nag bu sa maam ñaanoon boo ko nangoo rek yàlla defal la ci ndimbal te nag yéen a ngi koy nangu bu baax ndax dëkkin bi rafet na sell na te jub na li ñu fi joxe tey nag lépp wax naa ko ci nasaraan waaye li ci ëpp solo mooy loo xam ne sant de santé yëpp dinañ ko am maanaam boo amee crise asthme nga fat boo demee ci centre de santé poste de santé ba la gën a jege ñu mën la faj ci lu mu gën a gaaw boo demee am euh, juddu bees mu naan la nga xamante ne mooy ndox mi nekkoon ci biiru yaayam am na machine bu koy pompé ci moom génne ko ndax loolu da koy sonal mën na ko lor loolu day xeex faatuk ndaw beneen bi mooy loo xam ne matériel bi ñuy utiliser ndax euh, microbe yi day nekk ci fépp matériel la boo xam ne boo ko ci dugalee dina dindi lépp luy jàngoro bu mën a lor ki ñu war a faj wala ki ñu war a opérer. am na it couveuse muy innovation bu rëy ndax yoof ku daan am doom matul juróom-ñeenti weer dangay ngay génn yoof yóbbu ko ci beneen ni hôpital nga fay lu cher ñu dugal fa sa doom loolu bés ni ki tey jeex na ci yoof am leen benn waaye dinañu dolliwaat Philippe Senghor ndax ngeen mën a jël lu bari dinañ it teg ci seen loxo table réanimation boo xam ne xale bi nga xamante ne mu ngi ci couveuse bi tàngoor bu mu soxla pour màgg ba mucc loolu aussi mettre nañ ko à votre disposition. mairie bi am na programme tabax poste de santé bu Nord Foire bi mu ngi ci doon waxtaan ak askan wi ndax bëgguñu def loo xam ne day jur coow kuy liggéey pour jàmm doo yee fitna fañ ko bëggoon tabax ndaw ñi bañ nañu ko. am na fu ñu askan wi jox dinañ ci ànd ak ñoom. tabax ko waaye ñu ngi ci étude ci wàllu assainissement ak ONAS pour man ko saafara gis naa suma suma suma xarit suma papa président délégué de quartier mu ne à quand la rénovation du poste de santé de Tongoor fan yi passé def nañ dem nañ fa def nañ relevé yi xam nañ surface bi am na programme bu ñu bindu boo xam ne dugal nañ ko ci pour yeesal école yi yoofu yëpp ak poste de santé yëpp donc ñaanal leen ñu requête financement yooyu ñu def incha allahu rabbi yàlla defal ñu si ndimbal tongoor it seen requête financement mairie Dakar bi maire Barthélemy Diaz waxoon ma koy remercier au passage ci tax taxawaayam ci dëkk bi dugal nañu ko service technique yi ñu ngi koy jàngat waxtaan naa ak ñoom li ma leen proposé moo ñu def un comité de suivi parce que alal lay génne lu toll ci téeméer ak juróom benn fekk fukk ak juróom-ñetti millions foo ko def faaw mu leer donc dama leen ne tóngoor nañuy ñëw toog maire Dakar ñëw toog maire Yoff ñëw toog ñu ànd ak kook askan wi ak kilifay dëkk bi ñu saytu ko pour lan la inondation jeex ci tóngoor donc loolu maire moo ci doon engagement am na yeneen yu ñuy lijjanti mais ba ginnaaw sotteegul dëgg yàlla mënuguma ci àddu mais li ñu bëgg mooy poste de santé bu jàmmalaay ñu yeesal ko poste de santé bu tongoor ñu yeesal ko ñu fexe ba zone Ouest Foire Nord Foire am poste de santé zone aéroport am poste de santé Philippe Senghor polariser leen ñoom ñëpp loolu mooy bëgg-bëgg Philippe nag ñu ngi dox mais dama bëgg lu wóor loo xam ne bu ma ko tegee seen loxo làmb ji jeex maa ngi ciy dox ñaanal leen ñu yàlla defal ñu si ndimbal mais li ñu mbébét bés bu ñu ko defee ndakaaru uyu si leen c'est ça ma vision c'est ça l'objectif c'est ça la vision de l'équipe euh, pour ICP yi fa laay tëjee di dalal seen xel yéen bëgg leen rek dee leen bëgg rek ñun ñuy def parce que li ñu waxante woon ak yéen su ma juumul ñu ngi ci ku la jox ndekki ngay xaar añ 11h jot mu indiwaatal ay petit four añ ñëwagul mu ne la naanal jus d'orange nga taaxirlu boo ko laajee añ mu teg mu toggal la man a tegal la ñun ñoo bëgg santé parce que wér gu yaram. obligation la ci maire mu taxaw obligation la nit ñi dañ laaj bilan matériel matériel day yàqu li ñu jumlu mooy defar doomu aadama ci xam-xam ak ci wér-gu-yaram boo amul doomu aadama boo am xam-xam stade boo defar xale yi yàqu boo amul euh, wér-gu-yaram ci askan wi boo leen defaralee dem fii mooy oto yooyu ñuy jël fay 100 francs dem fu ne te du am benn jeexital ci jaww ji ndax gaz lay dawee mm-hmm. doo ci mën a yëg kon nañu fexe askan wi am xam-xam mm-hmm. askan wi am wér-gu-yaram c'est les base maanaam mooy ndëgërlaay pour tabax ab société pour defar ab société donc ñun ci lool mooy suñu vision waaye nag nit ñu ne ñu teraanga àddina bët chantier yaa ngi ñëw jaraaf si ni am na lu ñu si ñekk moom pour wane ne réeroo ñu ak suñuy kilifa lañ si njëg moom du dara lu dul defar terrain boo xam ne dina yegg milliard fii ci Ndangaañ defoon nañ pose première pierre bi balaa ñu démarrer chantier beneen bunt bi gën ñun li ñu amoon feeñ jaraaf damay taxaw jël alal jooju dugal ko feneen jël la bees la ñëw tabaxee ko terrain bi te fee fan yu néew di ngeen ci am lu leer incha allahu rabbi loolu lañu bëgg askan bi bu amee projet na ñëw ci mairie bi ànd ak mairie bi ñu liggéey ko donc loolu il faut ñu góorlu ci taxaw ci ndax waxtaan nañu ak nëngaañ dara sennul dara génnul ba nañu signé convention bi conseil bi jox ñu si autorisation bi passé te ñëpp xam nañu conseil municipal mu nu mettee mais ñëpp ànd ci projet bi donc loolu dégg boobu yof am yàlla na sax donc ma ñëwaat ci ICP yi wax ma la ngeen bëgg rek ñu waxtaane waat ko ñañu war a dolli ci seen ak payoor ñu xool lu ñu leen delloo ci seen ak payoor loolu man ànd naa ci mais na ànd ak les lois et ma wax ko Cour des comptes ci mairie bi pour juróom ñaari weer dañ may laaj te li may def it faaw mu méngook li tax yi wax dëgg yàlla moo tax loolu mooy wane ne euh, lépp mënuñu ko def saa su ne wala ci joni joni ndax ëllëg bu lii jeexee dinañ ma laaj la nga na nga yore woon noo ko yore te ginnaaw bu la ko Cour des laa laaj yàlla da la koy laaj donc foog nga bàyyi xel yooyu defar leen seen tableau ngeen waxtaan segle le médecin chef fi ñu soxla pour accouchement muy ndenaat euh, muy poste santé Yoff ndenaat daagu daan ak APEXI ngeen wax ma naka ngeen ko bëgge ñu defe ko noonu maanaam lépp lu ñu soxla parce que jox matériel te amoo ko ko exploité amul njariñ donc yéen bëgg leen rek ma topp leen di wax nag ne feex fan yu néew dinañu organiser ak médecin chef ak équipe am di la remercier bu baax jaata ci sa taxawaay euh, taxawaay boo xam ne dinañu saytu feebar ak wéylaago yi daw ci dëkk bi ñu xool lu ñu àndi xeex ak li ñu jot a faj ñun aussi. ak li ngeen jot a faj il faut ñu def une restitution communautaire. communautaire voilà incha allah avec les les notables. incha de santé yi. bu nekk li nga jot a faj ci feebar. mettre mhm. ko war a xam. muy sibiru ak ñaata ñoo fa décédé. Mhm. ak ñaata ñoo ko accouché. ak ñaata ñoo xam ne que finalement seen bët yàqu na. Mhm. loolu normalement moom la ñu ne restitution communautaire autour du maire. ICP bu nekk day taxaw tari li nga jot a def 6 mois bu nekk. maire déglu askan bi déglu. film sa ngoo tam day ñëw. te am na maquette boo xam ne que am naa ko ñoom xam na ñu man xam naa. loolu moo war a am fii. parce que moom dafa am une gestion transparente. transparente lépp luy matériel itam bu yàqu itam fekk joxe na ko. Mhm. logistique li yàqu na yaa ma ko joxoon. mais maa ngi am entretien bu baax loolu mooy une gestion transparente. incha allah su si àndee daal mu defal ñu notification ma lancé ko. ànd nañu ci dinañ ko def euh, waaye dañu koy boole ak éducation. merci ñu def une journée. merci invité ndey ji réew yi jaraaf invité toute la communauté. ak conseil bi ñu dem. hôtel ñu toog waxtaane ko ñu xamal leen biñ fi jotee ñëw lii lañ liggéey ci éducation ci santé ñu saytu ko ndax il faut évaluer les politiques publiques pour askan wi xam ne seen alal fi mu dugg fa la war a dugg di tëje nag ne ñu bari dañuy faatu fan yi la Cheikh ñaar toog fii yàlla na ko yàlla yërëm am arrêt cardiaque lan nga man yëkki yóbbu yàlla mooy jël bakkan ci loolu nag dem nañ seeti SAMU SAMU waxtaan ak ñoom dinañu forme tout le personnel médical si urgence ak secours incha allahu rabbi dinañu former 300 yoo fois jaraaf yow sax si ngay bokk ndax yaa ngi ci ndaje yi def nga sant dañ lay dolliwaat forme waat la yow ak kilifa yi fi ne pour foo leen mën a ne ku am lu ko daal rek ngeen mën a def yéen les premiers soins et les premières interventions donc loolu dinañ si former 300 yoo fois pour 2023 2024 ñu yokk ci ba 500 yoo fois li ñu bëgg mooy ku tourné daanu nga am ku la mën a taxawu léegi doom loolu aussi ci santé bi loolu bokk na ci di leen sant nag di leen ñaanal ay xale lañu mag mooy muñal xale man de am naa ñetti doom yu góor waaye damay muñ si ngay xam lan la sa wéjur doon daj ci yow ci ngay xamit ne war nga gën a jox cër sa wéjur lu ci am solo la moo tax ñu ngeen ñaan mag ñi ñu xam ne ay xale fi ne ni ma Sidi Bara di muñale grâce di ma ko muñale maa ngi ñaan ngeen muñale ñu ko noonu du yomb nag ndax boo yoree kàddu askan état tënk la loise et règlement yi tënk la am na loo man am na loo mënul am na loo mën a bàyyi am na loo mënul bàyyi waaye li may dalalee seen xel doo leen ñu dégg ci luy yàq doo leen ñu dégg ci kàddu bu ñagas lu nar a yàq nar a ñaaw yàlla ko yàlla rafetal ndax yoof gi ñu bokk gis-gis la weesu na sama jëm weesu na sama kàttan benn mandat ñaari mandat yàlla mooy fale mooy fale dëgg yàlla donc dañ koy delloowaat suñu borom buñ ne day yem ci benn alhamdulilah am na ñu métier ñu liggéey daan nañ añ réer ndekki balaa ñu nekk maire dañ nekk maire commencé xam butéelu caaf ñaata lay jar ndax mënatoo wër di jënd caaf fukki dërëm da ngay jënd butéel bi denc suturlu ci ndax ñi ne ci maire bi xam nañu li ñuy daj donc coono kese la waaye natt bu la ko yàlla tegee danga koy nangu bu ne day yem ci benn alhamdulilah bu ne day dem ci ñaar ñu àndaat liggéey waaye li tax ma wax loolu mooy dañuy leeral nit ñi ne daw ñu ci nguur déedéet duñ jëfit jëf joo xam ne day yàqal nit duñ jëf-jëf joo xam ne dina doyadil suñuy wéjur ak suñuy kilifa yi mel ni yéen pour téye nguur dara ci àdduna jaraluñu ko loolu daal lañ doon dalalee seen xel ñu génn def remise symbolique ñu ñaan yàlla ñëpp teewe ko ngeen gis ne matériel baa ngi nii du lii rek li ci table bi lu ci bari muy ci biti ñu àndandoo jox ko poste de santé te dinaa leen seet si fan yi di ñëw laaj askan wi est-ce que yéen a leen di toppatoo seen gémmeñ ñoom man sama nopp incha allahu rabbi allahuma salli ala sayyidina